20 ans d'existence Assane Ndiaye et son label Bawol Production le 27 juillet à l'arène nationale mbokk yi déglul sargal Abdoul Aziz Ndiaye Assane Ndiaye ni 20 ans la ànd ak Abdou Aziz Ndiaye te dara ñaawul moo tax combat bi dox ci diggante Moussa Ndoye ak Mbaye Guy moom laa koy jagleel juróomi grand combat beneen bi war a dox ci diggante Cheikh Super Jamono ak armée bu ngéwél 19e édition drapeau Aïda Mbodj koo koy jigéen ju mën góor la lionne de Bawol li gën a rëy ci bés boobu Aïda Mbodj moom lañ koy sargale ci bés boobu la ñuy sargal mbokk yi Badara Gadiaga le bienfaiteur de Grand Dakar original boy town Kéba mi bëgg lamb bëgg lamb jëm ca kanam Assane da ko fay sargal maa béy borom Bambey saltige bu mag bi Assane Ndiaye da koy sargal ci bés bi ci bés boobu mbokk yi Valdo dina fa jàkkaarloo ak Boy Dakar Farouche jàkkaarloo fa ak Kaw Cissé ak ay combat préliminaire yu yéeme sax ndaxte vingt ans du ay jaaxaan Assane Ndiaye ni damaa waxtaan ak amateurs yi ñu ni ma entrée supporter bi def ko 3000 francs annexe loge boisson originale ETDR établissement Touba Darou Rahman Distingo Monix Bet kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bésu delloo njukkal le 27 juillet ci arène nationale ñu ànd ci ak Bawol production jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy suivre site Kewel Info di leen nuyu waat nag baax a baax a baax a baax di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di sama sëriñ notre responsable moral bu daaytu mu sas dir mu sas daal bi muy kër fadir yëpp ñaan réew mi na fi yàlla def jàmm dañuy am mbégte contentement bu baax a baax seen waxtaan ak ki xam te moom mooy suñu grand frère euh, nekk frère fils de Balla mu nekk koo xam te ne wax dëgg yàlla gis nañ ko nag mu yëngu ci làmb macha allah bëgg làmb mën ko lool te di ko topp dañ ko bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi frère ñu ngi mais Fatma Dia sama xarit bi maa ngi lay jaar di la nuyu di nuyu waa Kewel Info yëpp di sa patron Fallou Ndiaye di xam ne làmbam ji ñu ngi ko ci encouragé bu baax mi ngi tëgg ay combat neex di nuyu waa Kewel Info yëpp di nuyu Sénégal di nuyu waa Géejawaay di nuyu képp kuy bëggee Balla Gaye 2 ak waa Géejawaay yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax incha allah. ngeen jógee ci combat boo xamante ni combat bu metti préparation bu metti Balla Gaye 2 sa xarit sa doomu nday ñu gis vidéo yi ndeysaan ba ngeen fa demee mais combat boobu. waaw mais Fatma avant tout nag. damay jaale bawol bawol maa ngi jaale fépp fu bawol bawol nekk maa ngi lay wax sigil ndigaale na xam nga lii mën nañ koo jàppee genre dëj rek. <laughs> ah non lii moom buñ koy misaal ah. dëj nga ko mën a méngaleel. waaw ngi jaale fépp fu bawol bawol nekk maa ngi lay jaale di la wax sigil ndigaale ci lu ñu bokk di leen massaw di leen wax ne lii yàlla na fa gëj ndax lii ab dëj la quoi. <laughs> waaw lan mooy dëj Tapha Tine Balla Gaye xamoon nañ ne seen tuur dina ñëw. Ah. ndax làmb ji dafa taxaw ñu takk rajo yi Sénégal ba ñu teg ne ñoom ñooy booy Dakar yi ñun ñu mujj dem Bawol toog yor seen immeuble Ndiouga kebe bee jàpp nit ñi napp nit ñi sonal ñu fàttu ñu wét kalaasu mbay guy gi yeeg euh, beneen booy bu con bi ñu tuddati ñagas ak Bawol Bawol yi mais Bawol Bawol yi gis nga làmb ji avant moo am ñoom rek a amoon droit wax tafaatin laa la wax fi ñu toll nii nag ñoom moomee vent. mais kon nag bu war a wax. non mais làmb ji xam nga bi muy taxawee nag wax dëgg yàlla ku xam làmb rek dangay xam ne tafaatin mooy favori waaye nag ñun ñi dëkk géejawaay xam ne yoruñu nit xam ne ñun vampire la ñu yor ñun gaynde la ñu yor ñun. ñun sax am na benn moment dañuy am retour ñun dañuy xam ne làmb ji ñu jëm làmb ju série la ci ñun làmb ju capital la ku ne xam ne mbër dafa am moment yu bu traversé mais nag moment yi bu ko tra bu ko ni mbër traversé pour mu ñëwaat ci niveau bi du yomb mais pour wane la Balla Gaye c'est le meilleur de tous les temps ndax fii mu jugee ak fii mu yegsi waat loolu gaawul mbër di fi di fi gaaw yegsi victoire bu mel nii Fatma Dieng dina gaaw a dina yéex a amaat ci làmb de noo dina fi yéex a amati laa la wax Balla Gaye fan la gagné combat bi gis nañ def nañ ay face to face def nañ lépp mais pour yow fan la gagné combat bi. non ba lamb ji nag naa la wax dara lenn rek a ko gagné muy sañ-sañ ak fit lamb ji man lenn laaj ciy bañ a dégg Fatma Dia ay mystique ak loolu ñoom waa Baol war nañ koo sax rusa wax. non war nañ nañoo ponkal bu toll nii dafa ànd ak Baol yëpp. ñu dëkk ci huit mois di saraxeeg di sunguf ak di reen ñëw ñu def la ni nga naan ay galaaj loolu pour man nag buñ do bu ñu amoon staff bu baax loolu sax war nañ ko ruusa communiqué ay ñoo jàpp tafaatin ak dañoo mën tafaatin lamb ji barki Cheikhul Khadim galaaj feeñu ci ku xam lamb rek yàgg seetaan lamb xam ne lamb ji galaaj feeñu ci tafaatin dafa jël ay coup yoo xam ne gor gu ko jël ci àdduna non da ngay mel ni ko mande dañ da nga dañ la jàpp ci gàllaaj fekk jàpp ju la kuuy la mais imagine toi Balla Gaye ak loxoom bu diis Balla Gaye jàpp bâtiment bi dóor ko ay hypercule ba da ngay waaru mais loolu loolu foofu fu gàllaaj feeñ yow dañ ne prib tafaatin jàpp Balla gay dugal ko hypercule boo xam ne ñun ñëpp yuuxu mu remise gauche jug taxaw ah mais kooku dañ ko jàpp ci gàllaaj làmb ji gàllaaj feeñ yu ci de loolu la ñuy bëj a dëgg doxul ngay doxee ku ñu dóor ba nga sàngi neer luñ nooy doxee Tapha Tine wax dëgg yàlla ku yu ko Balla Gaye dóor amul mbër boo koy dóor ci àdduna muy doxal. mais tamit est-ce que na benn instant muy lay toog di def nii loolu yëpp ci duma yi la bokk xam nga nit dinañ la duma ba damm say baaraam damm sa bakken damm sa lépp loolu ci duma yi la bokk de. Tapha Tine moom na waa Bawol yëpp maase xam ne Balla gay mooy seen xalif général ñu bay Balla gay jàmm te respecté ko nag bu Balla gay Gaye te combat ñuy ñuy xam nu ñuy communiquer. ndax ñun nag tey moo tax foog ñu foog ñu mosol leen tuuti nag ndax làmb ji dafa taxaw ñun amuñu droit communiquer ñun ñëpp daf tekk xam ne làmb ji bala gay rek a war a wax ñun waruñu wax ndax bala am na fu mu jógee am na fu mu bëgg dem ñun xamoon nañ ne Balla Gaye mii am na fu mu bëgg dem ndax Balla Gaye moom man li may wax gars yi rek laay man heure bu demee INSEPS lu ma yor ci àdduna mun na koo teg man Balla Gaye bu ñu jëlee combat ñu ne dem na INSEP barki Cheikhul Khadim lu ma yor mën naa koo teg ndax damay xam ne <laughs> làmb bii lii du làmb caaxaan Balla bu bàyyee buri rek bàyyi golf bàyyi bàyyi maris bàyyi tiktok <laughs> non Balla Gaye mun naa rey mbër de leer laa la wax. Tapha Tine du comme nee nga ba tey doo nangu mystique dafa feeñ ndax ñoom dégg nañ ko ñu ne Aziz Ndiaye moo leen saraxee moo tëgg moo bëre moo daan. waaw Baol war nañoo rus a wax loolu sax Aziz Ndiaye du 2013 njëkk a tëgg seen làmb ñoom ba leen Aziz Ndiaye di woo téléphone du xam nañ ne mooy agent Balla Gaye yow promoteur daa mën daan mbër Modou Lo ak Balla euh, Modou Lo ak Luc dañ daan tëdd hôtel Palm Beach ñoom ñaar lekk seen i grillade ba pare ne dañuy bëreeg Balla la la sàngam bu ñu ñëwee stade Balla jàpp Modou Lo duma ko ba yaayam ne bëreetul ak moom mais loolu promoteur daa mën daan mbër promoteur bu mënoon daan mbër Balla Gaye dina daanu ci àdduna promoteur bu mënoon daanu Sa Thiès bërki dëmb Eumeu Sène dina ko daan mais affaire yi promoteur daanu mbër de Balla Gaye moo jàpp tafaatin dumu ko duma yu metti daan ko jël bu rëy ndax bu doon affaire de promoteur rek kon ma xam ne Balla du mës a daanu Aziz Ndiaye daa mën a daan kenn Aziz Ndiaye lenn la mën rek tëgg na làmb li mu daan defal Balla Gaye da koy defal nag ba Aziz Ndiaye yàggul def loolu ci làmb ñu daan Balla Gaye nañ waxante dëgg Aziz Ndiaye yàgg naa tëgg lamb wàcc ci stade lu ne mu def ko mais ñu daan balagay Aziz Ndiaye mënul daan tafaatin barki Cheikhul Xadim bu mënoon daan kenn Aziz Ndiaye rakkam yeeg xaritam yi bëri soppe mi kenn du daanu promoteur mën ta daan bër Fatma Dia promoteur mën na nekk sa waay keuse ngeen bokk lu ne mu yor say galaaj di la tëgg làmb te doo daan ku ko weddi xool ko ci Modou Lo ko Luc Nicolaï ni ñu te Modou Lo fu ko Balla Gaye jàpp def ko lu metti mais loolu du làmb quoi waa Bawol Bawol war nañu rusa wax waxu galaaj làmb ji galaaj zéro galaaj Tapha Tine moo teel a jël ay coups yoo xam ne non mais ku ko jël non da ngay sonn da ngay jeex a takk Balla Gaye uppercut am yooyu daa ci kenn uppercut yoo xam ne lépp à cent pour cent da ko jekku xam nga mbër des fois dina la dóor dix coups te du la du def benn impact mais Balla Gaye dafa jàpp Tapha di ko dóor dóor yoo xam ne benn bu ci nekk rek mënoon na ko daaneel tafaatin Tine teel a nelaw ci làmb ji xam nga mbër tamit li Sénégal di wax yëpp dëgg la dañ koy bañ mais dëgg la mais Tapha ñemewul Balla Gaye te du ko mës a ñeme avant sam waaw yow déggaloo Tapha Tine waaw bawala ko xëpp rek xam nga yokk ko fit rek kii yaa ko doole yooyu ñuy noonu ñuy waxee rek yaa ko doole yaa ko lii da nga koy mboxoñee Tapha Tine dama koy jox benn conseil di woo bawal bawal yëpp ñu déglu ma attentivement xam ne sànni ma leen xeer mais bu ñu bëggee seen mbër mi gën a nekk champion seen mbër mi yeggali yoonam nañ ko récupérer ci loxo Éric Favre loolu conseil boobu maa leen ko jox. ndax lan boo xoolee bi mu commencé fréquenter Éric ba léegi làmb moom daa génn ci moom Tapha Tine de cinq ans yi da nga ko gis mu bëre Tapha Tine day ñëw rek taxaw kor dóor gauche dóor gisoo làmb bi doom sax jël mook Bombardier doom jël mook Boy Niang doom jël gis nga ni ko Eumeu Sène def waaye Éric apporté lu ko dara yoru yorul daraay làmb ba lamb sosoo ba léegi jamonoy falang jamonoy falaay balde jamonoy Fodé Doussouba mosoo dégg mbër buy préparé Abidjan Abidjan y a pas de lutte là-bas làmb Sénégal la ne làmb mbër bu ci bëgg ñëw ci géew gi fresh barki Cheikhul Khadim da ngay wàcc ci dun yi di contact par ngoon mm. loolooy tax bu arbitre ne prime nga mën jëflante mais Tapha Tine buñ la jàppee yóbbu la Abidjan dugal la ci ay mband galas yanu pëne yëpp teg la ko ngay bërën def la panneau publicitaire di la yokk di la wàññi di la publicité loo ay produit am mais Eric Favre lan la yor lu làmb maa ko wax waa Bawol bis bu ñu bëggee seen doom ñëwaat ci course bi nekkaat champion Tapha Tine kat moo ko dàq bëre Tapha Tine champion la de barki Cheikhul Khadim boo xoolee démb ak bërki démb Tapha Tine danaan bëre lu doy waar amoon réflexe nga jàpp ko mu mbot la nga jàpp ko mu caxabal la mais Tapha Tine cinq ans yi gis nga ko mu caxabal nit gis nga ko mu xatar bi dara ndax xamul tax sa saf nañ ko pois boo xamante ne tey Tapha Tine mënatul mbot mënatul xattar bi mënatul dara ndax Eric Favre dafa dara yi làmb Eric Favre dafa ñëw Sénégal yoru markam bu ko jaay xool benn ziar bu mel ni Tapha Tine mu investir ci moom taf ko ci wetam mun na ko amal jariñ nag ci yenn yi tuuti tuuti rek mais li mu li ko Tapha di apporter mu ëpp fuuf ndax Eric Favre dañu waxante dëgg Eric tubaab la tubaab bu rax Abidjan foofu lamb dafa am dañoo wax dëgg Fatma Dia ay glace bëriwul ay dugal xooj la ci glace loolu bëriwul ay yanu loola ay pir pneu ay yanu loola di la yégal ci ay ascenseur ngay xëcc ay building yooyu loolu du mbër lamb contact la boo contact mooy mooy may mooy may mbër réflexe mooy tax nga jàpp mbër taj xam ne da nga ko war a dóor mbot contact mooy tax nga jàpp mbër ngeen jaxasoo ga daw caxabal ko mais xoolal bala ngay lamb ji rek dafa jugee ni sept rek ñëw sampu contact bu wóor di xëy fajar quatre heures du matin di ci nekk di contact lu metti moo tax xoola bëri bi rek Balla Gaye dafa bëri ba dee. jëm ah Balla mais fan lañ jëm. Balla nee na am a Sène Lamine Gola nee na. vraiment lambam ak Balla Gaye moo saful dara wa Sénégal hmm. te Balla Gaye gëm naa ne man fii mu toll nii am na wax ju ka fa waxoon hmm. Balla Gaye dafa war di bàyyi xel ay supporters ndax Balla Gaye tey bu ñu nee mooy làmb bu ñu nee mooy number one ci làmb mooy papay VIP yi mooy papay mbër yi bu ñu ko waxee xam nga lu tax supporters yi muy drainer ay supporters bi ñuy def stade bu ñëwee stade ñu ambianceal ko ba làmb képp ku ko namoon mu duggaat sa yaram Balla Gaye def war di déglu ay supporters am supporters yi bëgguñu Eumeu Sène ndax bëreem mag moom safatul dara waaye Eumeu na jàll na le na ñu may jàmm làmb dafa am yoon moom moom heure bu nekkee ci ay guddi gu bët setagul rek moom jàpp na ne Balla ko war a soqali te làmb dafa weesu foofu moom mi ngi may booy chance jantal grand la wax dëgg yàlla champion la jàmbaar la mu ngi ci yoonam rek na ci nekk mais Balla Gaye fi ñu tolli fi mu supporter yëpp bëgg mu dem mooy imam bee nekk parcelle teru couronne bi. mais ñoom neen duñ bëre ki nag làmb du biir day xëy wasit moo ko Siteu bis bu ñu tàqalikoo ki fa jógee par force da ngay bëre duñ bëre dégg nga keroog wax naa waxat nañ ko waxati ko neen duñu bëre ndax yow Yékini waxu fi woon du bëre dootu bëreti amaa lak dëgër mu ñëw bërewaat Eumeu Sène mi waatu fi ci alxuraan ne dootu bëre ak Balla fi ñu toll nii moo bëgg a bëre ak fii ñaata mbër moom naa la xamal dara mbër bu ko kenn topp ci loolu mbër bu ko kenn topp ci dootuma bëre ak diw wala dootu man maa waatu ne dootuma bëre mbër yi seen waat du waatu dara non làmb jooju day taxawaat non xam tax Siteu ak Modou Lo aw faral kenn dama leen di ñaanal yàlla que le mais ñoom ñaar ku ci gagné incha allah lamb da lay booleeg Balla Gaye par force ndax yow sax yaa koy bëgg mais empereur day caaxaan. mais ñoom dégg nañu empereur euh, euh, ñaari kii euh, mënul am ci làmb empereur roi moom éliminé nañ ko ci làmb ah. fi ñu toll nii empereur bay daw. mais Modou Lo mooy roi bi nag. di sant Aziz Alain Ndiaye bu baax. Ah, waaw nag Modou Lo mooy roi des arènes. Modou Lo nag Modou Lo xam nga mënut a nekk roi ci kanam Balla Gaye 2. ku la jàpp ñaari yoon ba sa yaay génn ne bëreetuma ak moom. kooku xam nga ne kooku bu ñu taxee ñu la yaay roi Balla Gaye amul sens. léegi lenn rek moo ko mën a sauver bu paree ci site bu fekkee yàlla da ko may ndam mu ñëw. teg couronam ñu génnee suñu couronne empereur teg ko ci table bi ñu dem arène nationale que le meilleur gagne kii borom vingt secondes yi non Franc moom Franc moom bu buggee lamb jank dëgg bëgg lamb bu neex bëgg lu ko génnee dëgg fils de Balla gi nii toog ñoom ñaar ñoom ñoom ñaar seen combat euh, Lac Rose bi dafa naroon taxaw lu ko yàq machine machine mën na la yàqal sa adversaire te boobu ba léegi bëree woo depuis un an ngay chômer ban njëriñ la la amal Franc barki Cheikhul Khadim bu jëlee Fils de Balla Fils de Balla loolu maa maako loolu maa ciy woo Sénégal gi yëpp ñu ñaan rek ba lamb jooju taxaw. moom vaarum lan. Franc ni muy bëree Franc gis nga ko de moom gis nga ko dafa taamu ay adversaire am sax ndax Franc ni muy bëree wax dëgg a gudd rëyul. waaw amul mais nag li muy tànn baax. Franc boo xoolee victoire bi dafa bëri ay bébé Saalum ak genre yooyu de. Franc boo xoolee man benn adversaire laa ko validé muy Forza mi. te Forza ku ne xam na ne Omi jàqu na bu yàgg ah non champion la moom wax dëgg yàlla champion la Franc Ndiago kenn du ko bañal champion mais mook Fils de Balla barki Cheikhul Khadim bu ñu wuree nga gis làmb joo xam ne doo ko mës a gisati ci àdduna waaw Fils de Balla jën kër itam làmb yi bëgg nañ ko ñun tamit bañuñu ko de vraiment mais ñun moom suñu bët ñu ngi ko focaliser wun ci Franc Zarko mii lambam ji yàqu te Zarko ku ne xam ne ne moom dafa bëgg affaire bandi bandilu Zarko Zarko ko moom lamb moom fii lay dee niveau bii lay dee ndax bëggul lu baax <laughs> yow doo ñëw jël ci yow yow yow mën nga bëri jën kere te bëggoo bëri Fils de Balla loolu loolu loolu champion la loolu gaynde la. mais nag bi la bu dañ ko wax benn waa géej waaye ak po wax benn affaire bu na ñëw jël Fils de Balla bu ko daanee jox ko Balla Gaye. d'accord barki Cheikhul Khadim bu jëlee Fils de Balla bu ko daanee billaay walaay ñu pousse ba ma xoo ci Balla Gaye mu jël ko par force. loolu gañ bu bëggee promoteur a koy signé wala Aziz Ndiaye tëgg ko ñaari avance Balla am na ay adversaires yu bëree bëri macha allah. fii moom macha allah non mais mbëri tamit dañuy tànn rek ndax boo xoolee Zarko taxaw nañ fii 2STV yi ñu wàcc ci micro yi mu ne Fils de Balla ñun ñëpp ñoo taxaw ba li ma lay wax ni yàlla rek ma tiim seede amoon na plus de vingt personnes yu ko seede mm. mun leen booy may leen ma jàmm bëriwu ma fiis Fils de Balla bàyyi leen ma jàpp samay booy yi di ci gérer samay affaire mm. mais gisoo ko gisoo ko yaa dafa faas ak ay jabe jee nag ay booy yoo xam ne fii lañ koy yem jàppee dóor la tànk paketale nii rek jël la mais na jël Fils de Balla bu jëlee Fils de Balla de moom Franc moom Sénégal ñoo bëgg seen combat te loolu dafa neex Zarko ku ne xam ne ne waga la dafa am fit day perturbé te ku ne xam ne Fils de Balla moom dafa bu muy juddu euh, indaalewul tiitukaay ngay dëgg ci ay commentaire ak ay yenn des fois ñu naan Fils de Balla tapet la tapet yow loolu loolu jaaxalu la wax ne ni ku jàpp borom Malika moom damay bañ tudd tur bi léegi sama xarit bi général moom day bañ may tudd loolu mais général Malika maa bañ a tudd turam ndax c'est un grand champion ku ko daan da koy wër di ko ndamoo ci dëkk bi ndax ñun non ñun bañ koy daan bañ koy daan général Malika kenn ñemewu dugg ci gardam non nekk champion jóge ci rëg-rëg daan rëg-rëg ñu xëy jël ko àdduna ñëpp ne mënul nekk. fils de Balla nañu barki Cheikhul Khadim sama làmb yëpp bi mu ciy gën a neex nañu bagage yi bis bu ma jàppee général yóbbu ranger leen bagage yi mais kooku man ba ma ko waxee sax dafa war a ginnaaw ma ne gànna kii sóob rek lay def waaye munu dara ci général mais ba ñu ba mu fiilee général day bañ ma wax loolu mais nag général bu ma bañ a loolu nag mais di nga dal champion bu mel noonu pare borom ne doo ko tudd gis naa ko mu toog ci télé yi di ma yàq lu ne te sama rakk la sama xarit la amoon nañ fi tuuti benn wax après ma woo ko téléphone karaat doole ndeysaan sama xarit bi def ci intervention bu rafet bu ñëw ba sama kër paas ma ko téléphone bi waxtaan nice mais moom daal mënul digéral wax ji quoi day jékki-jékki un mois rek si nga lewaat ma quoi général sama waay nga rek bàyyi yooyu non loolu moom ni booy naan par la force da nga koy dégg moom da koy dégg moom fils de Balla ni mu def général Malika loolu loolu mooy suñu adresse yi jàpp góor a soog xoolal champion bu mel góor a rek moo tax Fils bu ma déggee ñu naan tàppet laag ay daa bëgg lu yomb daf may jaaxal wala ñu naan Fils de Balla amul doole ak biir bi dafa rëy Fils de Balla ñu bari dañ koy ubbalee Fils de Balla maanaam boo demee këram sunu caat bi il elle cent quarante kilos sunu caat bi man rek maa fa nekk xeeboon kër googu mu dëkk kenn mënu fa am ay muscle kii kii kii kii kenn suñu kër kenn mënu fa am ay muscle Fils de Balla boo ko yóbboon booy set munul munul am ay muscle Fils de Balla nii la mën a mel moom moo bindee noonu ñaata mbër Sénégal ñoo fi amul muscle Gris Bordeaux moom dalee doon Gris ba léegi mës ngaa gis ci moom Yékini bëri na ba bàyyi bëri mës ngaa gis ci moom benn biceps wala benn kii ay caatu yoof dafa mbër yoo xam ne bindin la quoi affaire bi du ay pata du ay yambar tey xool ko ci Serigne Ndiaye rek Serigne Ndiaye sama xarit boobu champion bu mag boobu xool ko tey bindam nu mel da gis ci moom benn muscle amuñu muscle day am mbër yoo xam ne bu ñu doon ba une set du ñu am muscle ndax seen yaram moo bindee noonu Fils de Balla yaram la normal mais ku bu ku xool palmarèsam Fils de Balla bokk na ci xale yi gën a rafet palmarès Sénégal ñaari defet la am xam nga mbër bu am presque quatorze combats am ñaari defet kooku nit ñeme naa taxaw naan kii loolu dafa jafe léegi booy mbër yi ba ci paa yi VIP koo ci gis denc na quatre defet ñii six ñii sept ñii huit Fils am ñaari defet yor carrière boo xamante ne amul benn combat bu duré trois minutes yëpp deux minutes quarante cinq deux minutes cinquante deux minutes dix ay combat yu rafet dugal ci YouTube nga tàppe Fils de Balla nga xool ay combat moo tax bu ñëwee booy nan tàppe la commentaire daf may ree ba sonn Fils de Balla ku ko xam xam kër gi mu dëkk xam deret famille bi mu bokk boo koy wax waxu ragal dëkk ndooy bi sax dañ lay reetaan ndax boo xoolee ñi mës a jëftal jëflantal ci làmb yëpp da ngaa mës a gis Fils de Balla arrière mbër minute mu dugal la góos daw jëli la bari loolu lu metti deux minutes mu taxale ko yow benn làmb la ñëw juum te làmb jooju ku ne xam ne ne nag wax dëgg deex yàlla noonu la munoon demee xam nga fas ñoom dañu mën a tappale Fass des fois dañuy entraîner mbër ñoom ñëpp booloo doon benn mais benn objectif la ñuy am tey duñu daanu loolu mbër bu la neex Sénégal nga ñëw ci arène nationale kenn du daan loolu kan moo ci mën dara bëre woo puusoo paasoo taxaw jàpp mbër bi bu nee nii nga ngeen téye loolu kan moo ci mën a daan mbër loolu mënoo cee forcé sax tafaatin daan ko ci tey tafaatin bu doon bëre man mii ma taxaw ne tafaatin du ma daan non barke Serigne Touba du ma daan ndax loolu ku ne xam ne ne mën naa nekk mbër bu ne du daan rek duma daan te Lac Rose nag li may wax ci moom chaque jour rek Lac Rose Sénégal kan moo mën a ñeme yàpp Lac Rose rek ba jàpp ne Lac Rose yaa fos la Lac Rose dafa dafa Fils de Balla dafa bëre ñëw jël si mu fii ne ma nu mu demee nii ba lagrose ba ne ko mii ma gis barki Cheikhul Khadim dina fi humilier booy te boobu xaw ma ndax combat mooy Jackson dina taxaw sax ndax bu ma xamoon loolu sax du ma ko wax ndax Jackson moom xam nga tiitaru géejawaay la ñu dawal même pas deux semaines trois semaines lamba mu Jackson taxaw bi xoolal xoolal ni mu bëre Jackson Jackson indi métrailles door fii rajaxe ñëw mu sërxal ko waaw nga xam ne li ma waxoon ci lagrose ci fils de keroog stade ñëpp naaw sama kaw ndax dama leen noonu Lac Rose mii ma gis mu tenir Fils de Balla booy bu ñu ko fi joxaat da koy humilier te boobu xaw moon ne dafa war a bëre ak Jackson te xoolal ci Jackson ci mu nekk Jackson mu nekk xale bi gën a weex ci làmb mais xoolal Lac Rose jëngan tey ñi man li ma waxoon am naa ci raison tey làmb ñëpp jox nañ Fils de Balla ci lañ commencé waat respecté Fils de Balla ni sax xam ne Lac Rose bi wax dëgg yàlla Lac Rose Fatma Dia champion la kooku ba muy yëngal Demba Diop di duma waate di pakete waate kooku du tey kooku daa bokk ci mbër yi indi fit ci làmb indi sañ sañ ci làmb champion la champion lenn rek koy sonoon champion bu nekkee ci benn sa forme rek daa wàcc yoonam mooy maanaam daa jékki-jékki rek commencé tapale mbër yi yëpp lay dal da ngay jékki-jékki rek génn ci entraitement commencé wax rek commencé ngand ngandalu yi jël combat pakete préparé taf taf dem stade mais làmb du fen mbër bu ci entraîné wul boo duggee ci arène nationale bi da ngay weer sa bopp waaw loolu moom amul ma dem te ñëw waaw. di la jaajëfalaat bu baax a baax frère di la wax yéen kàddu ngay euh, tàggoo. maa ngi lay kontaanee Fatma Dia bu baax di sant Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye moom fi ñu toll nii géej waaye ñun dañu kontaan ci moom ndax xam nga ne xam nga rek sa mbër moom nit bu la ko encadré yoral la ko wax dëgg yàlla def ci li ci war yëpp. ba tey Balla Gaye mën a yegg si waat niveau bi ñun ñun Balla Gaye barki Cheikhul Khadim Fatma amuñu sago ci moom ñun bala Gaye man bu ñu tegoon Balla Gaye fii teg Fils de Balla ma jël Balla gay daw moom man Fils de Balla la ko gën a xam loolu yàllaa koy def Fils bala Balla suma deret la mais Balla gay de laa bëgg te tey Aziz Ndiaye nii mu ko def tey géej waaye kan moo ci kontaanu tey Sénégal te Balla Gaye du mbër bu du mbëru koñ Balla Gaye mbëru national la mbëru international xool Sénégal yëpp koy supporté da ngay dem Tamba Ndar man fu leen la mën nit di woowee tey bu bu Balla Gaye mën a ñëwaatee ci niveau bii mu nekk Aziz Ndiaye da ci am solo ak Pape Mamadou Fall président boobu nga xam ne école de lutte Balla Gaye bu dundee ba tey ji moom la ndax vraiment nag vraiment ni mu yoree gouvernement bi man daf ma sax jaaxal Pape ma buggul kenn ku déplané wu bëggul kenn ku mer ku frustré wu dina la woo ku mer mu jëli la jibboole la ak diw ku xuloog diw mooy taal ay otom di jaab pam man dafa dem ba talatul sax liggéeyam talatul sax jabaram yi foo ko fekk mi ngi jibboole ay mbër mi ngi dox lu rafet ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla li mu bëgg ci Balla gay ak Guédiawaye yëpp yàlla defal ko ko di féliciter empereur bi di ko wax ne Balla Gaye lu ñu la wax ci félicitation doyul xool yi sedd na xool yi kontaan na waaw di nuyu waa Guédiawaay yëpp di sant fils de Balla di sant gars yi staff bi ñoom Ali depuis Paris xam nga ñoom Yaya ñoom Gana daam Landing xam nga di nuyu gars yëpp waaw di di wax ne nag na na na supporter fils de Balla yëpp xaar waaw ndax ñu ngi ñëw léegi incha allah dernier réglage yi lañ taxaw nii waaw di masawu bawol bawol yi rek di leen wax comme ni ma ko tijjee woon rek siggi leen ndigaale ci lu ñu bokk waaw yàlla defal leen jàmm rek. te ngeen xam ne Tapha Tine nag wax dëgg yàlla noonu la mënoon demee baala du ko mën du mënu ko daan na ko. ñu ko jàpp <laughs> 20 ans d'existence Assane Ndiaye et son label Bawol Production le 27 juillet à l'arène nationale mbokk yi déglul sargal Abdoul Aziz Ndiaye Assane Ndiaye ni 20 ans la ànd ak Abdou Aziz Ndiaye te dara ñaawul moo tax combat bi dox ci diggante Moussa Ndoye ak Mbaye Guy gi moom laa koy jagle juróomi grand komba la beneen bi war a dox ci diggante Cheikh Super Jamono ak armée bu ngéwél 19e édition drapeau Aïda Mbodj koo koy jigéen ju mën góor la lionne de Bawol li gën a rëy ci bés boobu Aïda Mbodj moom lañ koy sargale ci bés boobu la ñuy sargal mbokk yi Ndiaga Ndiaga le de Grand Dakar original Boy Town Kéba mi bëgg lamb bëgg lamb jëm ca kanam Assane Ndiaye da ko fay sargal maa béy borom Bambey saltige bu mag bi Assane Ndiaye da koy sargal ci bés ci bés boobu mbokk yi Valdo dina fa jàkkaarloo ak Boy Dakar Farouche jàkkaarloo fa ak Kaw Cissé ak ay combat préliminaire yu yéeme sax ndaxte ans du ay jaaxaan Assane Ndiaye ni damaa waxtaan ak amateurs yi ñu ni ma entrée supporter bi def ko 3000 francs boisson originale ETDR établissement Touba Darou Rahman Distingo Monixbet kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bésu delloo njukkal le 27 juillet ci arène nationale ñu ànd ci ak Bawol production